Africa is on the place. Uh, the, the nigga is a jar uh, because he is my friend. and uh, he's the best uh, li ma sol moo ko defal. <laughs> depuis ce matin les gens <laughs> li ma li ma li ma sol moom moo ko defar. Euh, moom mu ngi ko mu ngi ko tuddee lu tax mu tuddee marque am Salma on va parler de ça moom moo habillé Kia habillé ma biche habillé euh, Ndeye Kumba Alphie mais Fatou Kiné nee na euh, ay ay yëfi xale la parce que seeni fant baax na lool ni nga jaa on va parler de ak dans quelques mais en attendant euh, dañuy wax ci wàllu euh, xeesal bu njëkkaan bu jeeg gi daan ñaral daan nañu def rek seen i mélange ñoom ak a ñeeg yu baax yooyu nga xam ni euh, dëgg-dëgg ku ko mës a def rek leer nga naññ mais ndekete jigéen ñi léegi yamatuñu ci saar yu gàtt yi léegi ñu ngi ci saar yu gudd yi <laughs> saar gudd yi mooy dañuy pikiiru pour xeesal wala ñu naan ay doom muy lu garaaw loo xamante ni man bi ma ko déggee damaa tiit mhm. loolu nag ngay waxtaane tey lan la wundu pikiiru pour xees. néew ma piqûre rek waaye ak naan ay doom. ak ay comprimés ak ay comprimés. j'ai démarré en bu kenn naan comprimation. c'est grave la ko waxoon Sorano demee j'ai démarré en affaire ana ki ne laam ku accidenté mbaa nga feebar bul naan comprimation. <laughs> ku bëgg a xees bul naan comprimation ah? def leen comme Thiané Diagne xoolal boobu noirceur noirceur de benn ah c'est ça. Mm, <laughs> donc xeesal bi ñu xewal baaxul. bi ñu xewal baaxul ni ñu ko waxee noonu la dañuy pikiru wala ñu naan ay doom. Mm. waaye ni ma ko waxee woon rek ci njalbeen yooyu yëpp dafa xeetook euh, yi ñu duppee ay corticoïdes. Mm-hmm. ay xeetu euh, composante la yu nekk yoo xamante ni day nekk ci garab te corticoïdes yooyu. ñoom ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo koy bindal nit ñi parce que c'est destiné à d'autres fins dinañ ci ñëw loolu dafa nekk loo xamante ni pour yeneen jàngoro moo leen tax a jóg mais nag gis nañu nit ñi ñu ngi koy xeesal baal ma de dogguma la de mhm. corticoïde xaw ma mhm. fort gi mu fort feebar naa fi feebar boo xamante ni mhm. ñu bindal ma boo xam ne nee nañu corticoïde la docteur ba ne ma na nga ko diwoo ñaari fan comme man damaa ëppal te yàkkamti woon wér ma diwoo ko ñetti fan keroog fu ma génn nee nañ ma looy diwoo <laughs> ñi naan ma xanaa ñàkk nga ñi naan ma Cameroun ngay nuróol ñi naan ma Gabon ngay nurool <laughs> te lu ma diwoo la léegi loolu ma diwoo mu ñaral ma noonu dañ koy piqûre léegi am na sax ay comprimés yu ñuy naan c'est ah, mais li ñuy wax rek euh, garab la garab la yoo xamante ni loolu xeesal taxu ko a jóg leneen moo ko tax a ko mais nag soxna yi léegi dañ koy jëfandikoo comme d'habitude rek dañuy dem xooli mm. reportage bi dellusiwaat ci plateau bi Pape Cheikh crème gel walla jël dopp boolekaak lingom togg ngir rocciku bari na ay jigéen yu koy jëfandikoo ngir soppi seen der tey ji nag jamono di dox beneen feemu xeesal am maanaam naan ay doom mbaa pikiiru yooye yépp nag xeetoog yi ñu duppee corticoïde na muy faje noone la mën a lore li muy njëkk commencé yàq mooy jëm ci maanaam day tax yax yi gaaw a màggat seen màggal jotul corticoïdes yooyu day yëkkati tension ndax tension ñu koy jàngale sax noonu la ñuy waxee am na tension am si ñoom dañu xamuñu lu koy joxe ñu koy woowee hypertension artérielle essentielle xamuñu ko mais am na tension am si xam nañ la ko waral ñu ko woowee tension secondaire ci la secondaire yooyu luy waral tension secondaire corticoïde ci la mën naa joxe jabet mbaa mu yokk jabet bu fa nekk ba noppi ay problème ci bët ndax corticoïde day tax cataracte teel la ñëw ci yow corticoïde mën naa fexe loolu war naan jaasir mu dal la ndax doo mën a ëmb baa boo ëmbit mu indi sëpp sa yaram sëpp ko yoo nga xam ni ëmb ba du mën a yegg nga xàcc loolu loolu dooy xàcc wala gu jur doom yoo xam si buy ñëw dina indaale jàngoo joo xam si corticoïde boobu moo ko def booy xool deru nit ki dafa am li ñu naan mélanine te mélanine boobee nag di ñu aar ci jàngoro yu bari. dama bëgg jigéen ñi xam ne amul benn moyen amul benn fànn boo mën a xesalee te ni dara du ma ci fekk ndax du produit bi moo bon li bon mooy li li li nga li li nga dindi li tax der bi war a ñuul nga dindi ko ba mu xes ak noo ko mën a defee nag ñuulaay bi moom bu xasee ba dañ ba nga xes lu nekk mën na la ci fekk ndax li ngay dindi mélanine lañ ko tuddee mélanine boobu moo tax nga ñuul mais ñuulaay kese taxul yàlla defal na ko. yàlla duñ ko defal ndax dañuy fo fànq ci yeneen feebar feebar yi bi mu gën a fànq mooy cancer parce que bu ñu amuloon mélanine kenn du mën a dund can léeg-léeg yenn xeetu diwu xeesal yi ñu duppee leen anti âge maanaam bañ a màggat lii nag dermatologue bi ne wax la ju teguwul fenn. dara bu amee at yu mu war a ras kenn mënu ko teeras buru maa ras loolu amul. tubaab yi dañu bañ ba dañoo ay ay dañoo ay mooy yoo ci biir kenn xamul lu mu niroon dañu lay jaay crème anti âge lan bu tax nga fanweer loolu mun na ne mu ngoog ah, euh, concentré wu nañ ci bu baax parce que dañoo jaaxle <laughs> voilà ay garab yoo xamante ni pour faj la euh, nga koy defee leneen waaye nag ku jël eau de Javel mélange kook lingom ak gaz ak à def ko sa yaram boo boo garab buy faj leneen war ta jaaxal kenn. gis na gis nga ndaw soo ñuy wane moom euh, defe naa mi ngi defar mélange am jàpp ne nag mélange bu baax la. Mhm. ndax def na ca eau de Javel. ak pâte lu ne daal def na ko ca. dafay rotti nee dafay dafay éclaircir peau bi. Mhm. mi ngi koy diw ci tànk yi ak yooyu. lépp rek diw ta rafet. mais bul xam fu muy mujjee. te xeesal dafa metti am naa ci koo xam ne da doon xeesal waaye xeesal baa metti ba man dama tàmm su may retaan damay tàppe waaye fu ma ko nee tip rek mu ne ma bàyyi damaa ñar <laughs> mais à quoi bon. maa ngi koy gaañ mu ne ma bàyyi damaa ñar métti na métti boo xamante ne man moom piqûre bi laa ci gën a ragal parce man dama ne loo xamante ne da koy piqûre mu jëm ci sa biir deret te ku ne xam na ni piqûre ba bu demee ci deret moom bul xam lan la fay def. waxuma laa xeetu piqûre yoo xamante ni ku ne xam na ko corticoïde li ci nekk yëpp. yëpp mais mais man li ma bëggoon xam mooy garab yooyu ak piqûre yooyu pour leneen la. lu dul xeesal defe naa. effectivement pour leneen la parce que leneen moo ko tax a jóg. parce que ah. da gis léeg-léeg parce que yooyee lu ci ëpp ay anti inflammatoire la. Mhm. donc boo gisee dañ koy jël lu ci mel ni piqûre bi dañ koy injecté ci ñi nga xamante ni dañu am yenn douleurs yi. moo xam euh, ci yax yi wala dara. donc ñoom médecin seen jëmmi bopp loolu moo ko tax loolu moo leneen moo tax euh, garab yooyu jóg te booy xool sax ñoom garab yooyu duñ la ko gaaw a bindal. ay yu jëm ci ay corticoïdes neen nee nañ buñ ko bindee rek. cas de force majeure. dañoo dem ba nga xamante ni sës nañu sës parce que ñoom seen jëmmi bopp ñemewuñu garab yi. donc buñ la koy bindal rek c'est parce que dañu sës bu ñu xoolee xool ba xam ne yow mi kat sa feebar bi lii kese kese moo fi sës ci lañ la koy doog a bindal mais nekk loo xamante ne dañ la koy. bindal n'importe quand nga war ko mën a jënd di ko naan maanaam du garab bu ñuy joxe noonu du garab bu ñuy joxe noonu urgence rek donc man dama ni pourquoi gel yi di ko war a a jënd di ko naan ak koy jëlee sax moo may jaaxal loo xam ne si ordonnance te rarement lañ la koy bindal mais xam nga fii euh, bon c'est vrai parfois mën nañ dem doo xam lu ñuy lay bañ ba ñu jaay leen ko mm. mais aussi xam nga rek am na beneen recours bu ñuy jaar pour di jënd ay garab ak yooyu te loolu moo ci gën a bonati sax les médicaments de la rue yooyu ngay gis noonu ñu ci bari fa la ñuy dem di di di di di jënd seeni garab. Mhm. donc euh, ndagam euh, garab dañ lay wax danger lu ci nekk bañ na ko ba garab moom dañ na place am ca pharmacie ba la. Mhm. bu nekkul feneen fu dul ci pharmacie bi amu fa place nga dem di ko jëndi doo xam danger yu la ciy fekk yëpp. Pape mhm. Cheikh. Euh, li ma bëgg xam mooy danger yi ci nekk réellement est-ce que ñi koy jëfandikoo xam nañ ko bu baax. man moom daf ma sax man daf ma yéem man moom vraiment loolu moom daf ma yéem parce que dama naan xanaa nit loo loo loo loo dofe dofe laa ko man pour ah, ah, astafurlah entre guillemets ah mais ngeen baal ma ci kàddu gi mais man boog ñemewu ma ko parce que lii lii moo ko tax a jug nga jël ko pikiir ko muy jaar ci sa deret man dama ne xëy na aussi parfois dinañ xam euh, danger ci nekk mën nañ ko xam comme mën nañ ko umpale loolu moo waral suñu suñu reportage parce que ñun duñu duñu juger mais dañuy dem rek jëli indi xool jox spécialiste ñu wax wax danger conséquences nekk xëy na ñoom bu ñu xoolee lii ak li nga xamante ni moom lay jur yëpp xëy na bu buñ ko xoolee bu ñu ci sukkandikoo dinañ war a mën a bàyyi yenn yi parce que kii wax na ko wax yenn euh, xeetu tension yi ñuy wax tension secondaire yu ci bari yu ci bari kox ci koy di moo koy indi parce que sa temps dafay dafay dafay yéegal tension jabet bi aussi bu la fekkee nga am jabet également dafay gën a do dolli jabet bi parce que bu fekkente ne da nga koy jël pour xees bu fekkee yow yaa ngi am jabet nettaliwuma la ko ngay dem di def traitement diabète day mel ni traitement bi c'est zéro parce que à chaque fois dafay ñëw renforcer diabète boobu. baaxul également si jigéen parce que tout simplement dafay tere jigéen ëmb. wala mm. boog bu ëmbee day dem ba ci biir ëmb bu yàqu wa ilaa doom ji mën na juddu mu indaale jàngoro yoo xamante ni ci corticoïde yooyu la ko jëlee. Mm-hmm. donc conséquence yu bari. Mm-hmm. man dama bëggoon ñu dem beneen dëkk di ko fa wuti. ak di dem ci beneen dëkk ñu leen di piqûre parce que dañ leen koy tere fii effectivement ñu dem ci yeneen moom da ngay gis euh, lu ci bari luñ ko fiy tere comme entre guillemets ma génn tuuti gaam parce que boo jëlee lu mel ni euh, excision bi nga xamante ne dañ koy tere. da gis dañuy dem ba. Ah. dëkk yi ñu ko mën a defee. di ko ko mhm. defee donc toujours rek am nañu benn moyen boo xamante ne ni buñ fa jaaree xalaat nañ ni ñoom seen aajo dina faju. man c'est pour sensibiliser euh, les femmes enceintes. parce que fii Sénégal bala ngay mën a diw ba rafet rek. li ñuy def ngay waaj a ngénte te xamuñu ni que diw boobu ngay diw man waxuma sax ci injection bi mais ci diw bi dafay jàll ci sa deret te dina yàq dina dina dina dina parce que yaa ngi yor euh, bakken te dina day day dem ci ci luy dem ci deret cordon ombilical moo leen lii au delà de ça bu ñuy nàmpal. da gis yenn saa yi dañuy wasin ba pare di nàmpal mais dañuy diw seen wéen ba mu tooy ñu ciy nàmpal seen doom donc ñu ngi gaañ seen doom que boo ëmbee déjà rek xam nga sa yaram day am benn chaleur tàngaay bi muy am mais dañ la naan sax bala ngay mën a xees nag bàyyil ba ba ba yegg ci sept huit mois nga jàmb sa diw ba mu set mais gis nga boo ko diwoo da ngay gaaw a xees xam nga sa tàngaayu yaram bi ba pare la ciy conseillé kër bu ñëw nga rocci effectivement loolu rocc say eh, tànk man nag man bëgg naa yooyu bëgg naa suma Modou Dieng nag su may dëgg yàlla bëgg naa yooyu nag bëgg naa su may wàcc Dakar nag eh, eh, bijou bijou rocci la quoi na rocci bu baax nag naa def comme rocci comme rocci bi ma musoon gis <laughs> une fois qui m'a choqué je pense que loolu daf may choqué toute ma vie parce que gel magnon le maire bi jëndoon euh, créé eau oxygénée pour teinte karaw ak citron togg ko dèjà mu ngi koy togg muy fuur mu diw ko ci yaram bi. ay plastique wërale ko yaram bi. subxanala sol korule ak euh, blouson alors uh-huh. que tàngaay xam nga finalement daf doon def ni pot bi di denc. xam nga diw bi li si gën a métti mooy ñi nga xamante ni amuñu di diw. yow mënoo jënd diw nga ne ni <laughs> ni ah, nga ne yaa ngay diw mooy nga xamante ne ñooy jël ay ay dog yu garaaw yooyu ay gel moo ñëw ndax mënuñoo jënd tib bu baax eh, mais affaire am na ay xeesal yu riis la sax waaw gis naa ay rocc yu baax nag waaw yu baax mais su man su ma ko mënul dama koy bàyyi ndax mënul jënd bu baax ya kinne <laughs> mais li man de ku ma déggalati doo xeesal eh, mais eh, moi j'avais l'habitude de ah, wax parce que jigéen yéen ñi kenn ku ci nekk ak li la taar jaral xëj na ñoom dañuy xeesal waaye am na ci ñoo xamante li leen taar jaral dafa metti mais mhm. jaru ko ndekete man moo leen li leen ci mën a fekk yëpp ci biir et puis euh, euh, la xoolee cest à dañ lay ñàkkal fayda tuuti la yàlla boo dem entretien d'embauche da fekk fa ay kii naa ci naa xeesal bu baax quoi mais pas piqûre mais mais Fatou Kiné man kii te itam xam nga am na am na ñoo xam ne sax dañu mën a xeesal ndax dañu am système bu ñu koy defee mhm. bu ñu xeesalee ba sentir ni ñoom ñuy xees nañ bu baax da ngay gis ñu wàññi eh. xam nga moom ah, boobu kii ñu kii aar boobu baax boobu baax <laughs> ñoo xam dañuy li ñu naan accélérer la cadence <laughs> <laughs> ba cadence dem nag ba finalement mais je pense aussi que je pense aussi que euh, méthode méthode la aussi quoi waaw parce que parce que parce que am na bon après on demande pas aux <laughs> bi ma gisoon muy ñaral bi mu paree dafa rouge xeesul. loolu rek a ma ci jaaxal mais tout <laughs> dégg naa ko muy wax waxu crème anti âge. Mhm. que ça alors que boo demee en Europe wala ci Occident seen euh, industrie yi nga xam ne cosmétique la ñuy defar seen chiffre d'affaires yu bëri ci anti âge lay jógee. waaw moom bi ma ko laajee loolu sax man ci interpellé parce que léeg-léeg da ngay gis ay xeesal yoo xamante ne dañuy def anti âge. Hmm. donc ak yooyu mais moom gëmu ko. Mm-hmm. nee na anti âge loolu mënul nekk. loolu nag nee na tubaab yi ñu ngi ñu koy naxee souvent ay crème anti âge ak yooyu nee na mënoo am juróom benn fukki at jëm kaw nga ne doo ras. nee na crème anti âge crème anti âge boobu yow mënoo am yenn yenn at yi. <laughs> Fatou Kiné <laughs> nee na mënoo am yenn at yi fanweeri at. donc mag bu ñëwee da ngay xam ne mag ñëw na mais ay crème anti âge yooyu yàq xaalis rek mais dañuy wax boo ko commencé diwoo très tôt si sa vingtaine et tout ça si lay gën a efficace pour que am ay rëb ah, moom daal loolu la ma wax nee daal gëmu ko nekk na loo xam ne daal moom gëmu ko tegul fenn donc piqûre yooyu ñu xewal ak ah, euh, comprimation yooyu daal na ngeen ko mooy moytu ci xeesal bi baaxul looy tëjee pour sensibiliser surtout voilà loolu laay tëjee daal piqûre yi moom vraiment dafa nekk loo xamante ni c'est réel mm-hmm. euh, da koy constater même boo demee au niveau des pharmacies nee nañ am na ñu ko fay jënd si souvent. Mhm. mais xam nga léeg-léeg pharmaciens ñoom du ñu gaaw a wax. Mhm. Mhm. Euh, boo ci waxloo kenn moom lu lu rëy nga am. donc euh, dañ ko fay jënd si mais du ñu xam yu ñu koy jëfandikoo. mais lu mu ci mën a doon rek euh, xeesal bi daal rawatina ak bi. piqûre bi man surtout laay wax piqûre bi daal nañ ko gën a moytu mhm. parce que corticoïde mi ngi ci mhm. ak comprimé yi ñuy faral di naan te yooyu yëpp gis nañ danger yi muy yi muy indi mhm. yooyu daal nañ ko gën a moytu bu fekkente ne nag leeral mënta ñàkk ah leeral tuuti rek waaye daal piqûre bi daal ah, mënta ñàkk euh, baaxul <laughs> waaw voilà baaxul daal parce que tamit Sénégal yi tamit il faut nga wax ñun ndax fii ñun dañoo bëgg lu góor ñee bëgg jigéen yu xees <laughs> bu ñu gisee ko xees écoute après moi euh, su fekkee da nga mel comme man urul ay nii ne nee nañ dañoo xees donc euh, ah, leeral bi. Ah, ah, après dañuy wala boo amee bay jël boo amee bay xeesal rek. xeesal ba <laughs> <laughs> ñooy gën a nekk à l'aise quand même pour waxti xeesal yaa saa aussi <laughs> euh, jërëjëf Fatou Kiné ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ba jeudi prochain sinon toute la journée yaa ngi ci rédaction bi euh, ci jotaayu xibaar yi sa taxawaay am na solo lool ci yeewu leen bi loolu moo tax ñun ñi dañu ko fonk ba faf tuddee ko bàjjanu gox à travers ay conseil am ak sensibilisation yi nga xamante ni mu ngi koy amal donc tey waxtaane nag garab yooyu la ak xeetu piqûre yooyu jigéen ñi di piqûre pour euh, xeesal euh, accélérer cadence bi mu ngoog mu nekkoon euh, santé 8h30 Aminata yaa ngi préparé ñëw ah pour ñu wax ci défi 10 toogal xaar te xam ni ñu ngi dellu si waat léegi juste après cette page de pub